وصحبه وسلم بحمده الله أعظم من ربي وهو الله تعالى حقا ذوي النوال الوالي ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا أحمد بن محمد بن حبيب الله قديم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu ak fu ngeen mën a nekk di déglu sunu kàddu wala ngeen ñuy gis di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ni nga ko amalee ci guddi gàmm gu nekk jumaa yi Tuuba te mooy dundal guddi gi ni ko sëriñ bi jàngalee te mooy dëppale ko ak sunna mooy mbooleem yi ñu fi def mu nekk lu dëppoo ak digle yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam ni ñu baaxoo dundalee guddi gi nag tàmbali na ginnaaw bu ñu jullee gee ba teg ci ab diir rek ci la ñi nga xamante ne ñoo yor njàngumu alquran bi tàmbali woon lu jëm ci durus bi incha allahu dinañu ubbee fukki kaamil ak ñaar ni ko sëriñ bi doon amale bu ko defee njàng moomu waxtaan wi ngeen waaj a topp moo koy gunge incha allah bu waxtaan kat bi yeggalee itam eh, ñii mawlud te mooy ñetti kuréel yi ngeen baaxoo gis muy jës bu mawaahibu muqaddimaat ak ñii jàng barsan bi danañ awantoo guddi gi insha allahu taala ba fajar bu ko defee ngir bañ a guddal ndax day mel ne waxtu wi mi ngi eh, dox bu baax ñi ngi war a ànd ak waxtaan wi sëriñ Abdul Qadir Bousso al imam eh, wala alxaaji Cheikh nga xamante ne moo war a def waxtaan wi ci tomb bu am am solo te mooy kiimtaan ni yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yi nga xamante ne mën nañ koo gëstu jàngat ko ci biir mbindum sëriñ bu mag bi tomb boobu incha allah moom la fas yéenee nafar defal ñu ci ay fàttali waaye itam indil ñu ci ay bind yoo xamante ne danañ ko yóbbuloo bu ñu xee gàmmu Euh, li ci jiitu mooy euh, waxtaane yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu jariñ rek gën koo bëgg waaye gën a xam li muy woote lan la ngir ñu gën koo mën a topp loolu moo tax kon waxtaan wi di am solo bu ñu toppee incha allah Cheikh Abdul Qadir ci tomb bi dinañu ci am lu kawe njort incha allah di ko ñaanal sunu borom mu feccee aw làmmiñam waaye defal ko tawfiq ba li mu bëgg jotal mu jotal ko ni mu ko bëgg a jotalee te dara bañ koo kooj sëñ Abdou Khadir bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi di leen ziar di leen ndokkeel ci jamono bu tedd bii waaye di leen ndokkeel ci barab bu tedd bii ñuy daje waaye di leen ndokkeel ci guddi gi nga xam ne mooy ngeen guddi yi ndax ci la feeñ ngeen ji mbindeef muy guddi goo xam ne bu ñu ko delloo ci démb dañu gis ne guddi bu am ay jagle la guddi la bi mu ñëwee fekkoon na fi ay yàqu-yàqu yu bari fekk jamono lëndëm fekk jamono jaxasoo fekk sikki sàkk yi bari fekk bokkaale bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw indaale ak leer boo xam ne bu ñëwee mooy faxas lëndëm googu waaye indaale ak gindee boo xam ne bu ñëwee ngënante loolu moo ko fiy loolu lañu sunu sëriñ bi Cheikh Ahmad Bamba di ñu wax ne li mawlidil muxtaari sirrun yaxdumu id sawmuhu anil wara yalxatimu di ñu waxaat ca jës bu naan ñu laylatu nabi laylatu maxwir riya bi laylatu maxwi ya kimtaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñi ko Sëriñ Tuuba jàngale ci am mbiram ñi jagle yooyu nag mbokk yi bare na lool tusaaru na lool ci biir mbindum sëriñ waaye dañu ci jukki yenn nag yoo xam ne jàpp nañu ne xëy na bu ñu ko waxtaanee dana mën a am njëriñ incha allah jagle yooyu yi ci jiitu mooy ay jagle ak i kimtaan yoo xam ne sunu boroom defal na ko sang bi yonent bi sallallahu alayhi wa njëkk muy feeñ jamono yooyu nag bari na lool am na ci yoo xam ne da ko ko defaloon ci azal ba muy bind mbindéef ca la ko jagleeloon muy ay jagleel yoo xam ne kenn fekk ko ci ba ca jiitu mooy jël nañ ci ay waxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba ñëwee dëggalaat ko mu wax ne yonente bi suñu boroom mi ngi ko sol ak yonente li ñu wax ak nu mu wax mi ngi ko ko def njëkk muy bind aadama ba bind bay sotti waaye ba mu ko solee ak yonente ba noppi nag képp ku ñëwaat nekk ab yónnente suñ borom bindante naag yow contrat ne la boo fi fekkee yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam wala ngeen daje ko gëm waaye na nga ko jàppale kon muy koo xam ne ca azal la ko suñ borom joxoon ak nubuwa njëkk aadama di am bind bu sot bi aadama nekkee diggante ndox ak ban bi ñuy bind aadama mu nekk ci diggante ruu ak yaram foofee la sunu boroom radiyallahu an suñu boroom subhaanahu wa joxe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak nubuwa looloo tax boroom xam-xam yi naan yonent bi de mooy awwalul xalq mooy awwalul nabiyyiina fil xalq wa aaxiruhum fil baas mooy lañu njëkk a bind ci yonente yi waaye moom lañu mujj a yónni looloo tax boroom xam-xam yi dañuy wax ne euh, ku ñu wax abu jaafar muhammad ibnu ali dañ koo laajoon ne ko yonente bi naka lañ ko njëkk a joxe ak nubuwa ba noppi mujj koo yónni mu ne ah loolu kat nam demee woon mooy suñ borom bi mu bindee aadama bind ay ruu dafa wax ak ruu yi ne leen xanaa duma seen borom alastu bi nee na ba mu waxoo leelu ruu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo njëkk ne balaa aha kay ba mu nag ginnaaw moo njëkk a wuyu foofu la ko suñ borom joxe ak nubuwa loolu sëriñ bi wax nañu ko ba tàyyi wax na ci benn barab naan baana li jumlatil malaa'ikil kiraam kawnu rasuulillaahi lil xalqi imaam baana bi qawlihi balaa hudaahu yawma alastu fahadaa siwaahu di waxaat ci jës bu salli wa salliman alaa man qad ajaaba bi jalaa yawma alastu awwala qabla dawi takallum kon muy koo xam ne bu yàgg kon lay jot garaatu nubuwa mos nañ ko koo laaj moom yonente bi ne ko kañ la la yàlla jox mu ne booba aadama mi ngi ci diggante ruu ak yaram ku ñu wax borom xam-xam bu mag bu tudd as-Suyuuti yi dafay wax ne loolu nag noonu rek lañ ko war a gëme waaye kenn wërta jàpp ne xam-xam la rek bu yàlla amee woon daa di bàyyi noonu waaye garaat la bu mu ko joxoon ba mu téyeel ko boppam ndax yàlla moom ñu yónni ñëpp avant mu leen di jox ak nu mu wax xamoon na ne dana leen yónni waaye jagleel bi bi am sallallahu alayhi wa sallam mooy yónente gi daf koo jox te fekk sax aadama ak bindam mëtatu looloo tax ñu ne aadama bi ko suñu borom bindee ba noppi bi mu jàkk xool aaras dafa gis suñ borom bind ci turu yonente bi da caa gis muhammad rasulullah looloo tax sëriñ tuuba wax nan wa huwa allazi faaqa siwa min albaraya bi huda xatta bada katbu suma fi arshikal muazzami euh, sëriñ bi di ko wax ci barab yu bare bara xaasal aminu minal mawla nubuwatahu xidman wa aadamu fi salsaali qad lubida sabata kawnuhu nabiyan wa sanat wa jadduhu aadamu tiinun wa jasad nubuwatuhu qabla albaraaya qad injalat lahu sabtu xiinan jaddu fi tiini yuxzanu la anta alladi utayta xidman nubuwatan wa aadamu bayna almaai wa tin yanjali bi loolu jàllee nag yónente bi bu yónente bi bu fi mës it suñ boroom dafa bindante ak yow contrat ne la am na koo xam ne danaa ko yónni ci mujjub jamono boo leen fi fekkante na ko gëm waaye na ko jàppale loolu lay wax ci alxuraan وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم li ma leen wax ndax jàpp ngeen ko wa aqadtum ala dalikum isri ñu ne ko qaalu aqrarna mu ne qaala fashhadu wa ana maakum min ash-shahidin looloo tax ali abi talib daan kenn amul benn yónente la dale ci aadama ba ci yónente bi sallallahu alayhi benn yónente boo xam ne suñ borom bindante woon na yow contrat nee la boo bu ñu yónnee yonent bi fekk la ngay dund da nga koo war a gëm danga nga war a jàppal ndax loolu contrat la bu leer naññ looloo tax it Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu am bis muy kañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko wax naan bi abi anta wa ummi ya rasulallah yow de ah fa nga àgg sori na ci suñu borom ndax kat yow la mujj yónni waaye yow la njëkkatu ñu ne ko loolu fu mu amee mu ne mooy li suñ borom di wax naan wa ida xasna min annabiyina misaaqahum kum njëkk tudd dafa njëkk wax ne ko wa minka soog ñëw naan wa min nuuxin wa ibrahima wa muusa wa isa bnu maryam wa axasna minhum misaaqan xaliila kon mooy koo xam ne yàlla daf koo yàgg jiital looloo tax sëriñ bi bi mu ñëwee ci am njàngaleem mu wàññu loolu daraja jooju yonente bi sallallahu alayhi am di wax naan laqad jaa fi alqurani ma dallana maan ala taqaddumika almuti alataa almukammal di waxaat faneen li ahmad almuxtaari ma la yura abadan li gayrihi faaza man lillahi walaahu allahu faddalahu qidman wa qaddamahu wa man aba nahjahu bil azli xallaahu sabata kawnuhu raïs alxalqi qabla zuhurihi bi isni alxaq di waxaat naan kon képp koo xam ne dëgg rek moo la tax a jub xam nga ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ngën ji mindeef sabata bi ittifaaqi ahlil xaqi kawnu abil xayral xalq ku am xel sax xam nga ne yonente bi sallallahu moo jiite ñépp mooy ngën ji mindeef sabata bi ittifaaqi kullil uqala kawnu muhammadin raisal xalq di wax naan yonente bi la suñu borom def noonu moo am daraja jooju muy daraja joo xam ne kenn du ci fekk lil mustafa inda rabbi nnaasi martabatun taalu maratiba ahli siiti wal mikani allahu faddalahu qidman wa jallalahu la yakunu lahu mislun walam yakun salla alayhi alladi fi ljahri qaddamahu musalliman tibqa ma yahwa wa yaxtaar faneen صلى عليه الذي في الجهر قدمه حتى درى سبقه dara درى سبقه غمر ومن علمه muy koo xam ne it avant muy feeñ jamono suñu borom waajal na ko ci ay xew-xew ndax xam ngeen ne xew-xew boobu amoon te Abraha jiite woon ko jëloon ñey wa jóge yaman naan dee jëm si Màkka ngir toj Kaaba kenn ku ci ne xam na ne suñ boroom la tax sottalu pexem mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam la doon waajal ndax mooy ki nga xam ne kaaba gi ci loxoom lay mujj moo koy sàmm moo koy aar waaye it moo koy jële ci melokaanu di ko foowee yóbbu ko ci melokaanu ñu fay jaamu yàlla jaamu yàlla bu sax loolu Sëriñ Tuubaa nettalee ko gannaaw bu ñu ko alxuraan nettalee ci suuratul Fiil sëriñ bi mi ngi wax naan kaana yazuru manzila ridwaanu kay yubajjila minha tuyurul mursala ala zawit taazumi kon ay yanaaw la leen suñu borom booleel mu na nasaxal seen pexe kan moo demoon ak lan moom lan la doon wuti mooy na xaayilal baytil xaram li kay yasiira dan hidaam mustadrajun min al anaam lil jahli bil muhabbali abraha la ko taxoon a jub mooy màbbu kaaba bi te it ba mu koy def dafa réere suñu borom rek lan la ko suñu borom fayee wallahu la faala bi jayshi ma faala da suñu borom dafa mabbu moom kaaba gi la bëggoon a mabbu waaye suñu borom ñam àndaloon la mabbu boole leen ak ay picc ay ñanaaw ñu yor sawara ku sawara si dara rek nga daal di faagaagam ba sax moom Abraha ci noonu la jaare ñàkk bakkanam lépp nag lan moo tax suñu borom def ko mooy jaani yi wajaala ci daraja yonente bi sallallahu alayhi moo tax mu def mu def loolu ñoom kon suñ mujj mooy wal kullu min dawil batar maata bi asway xajar jaalahu rabbul bashar kalu xamin dina hin kenn ku ci na xam na ne xew-xew boobu nekkoon na xew-xew bu rëy ci arab yi nga xam ne demoon nañ ba koy taar taarixal sax naan nangam sàngam ci atum ñay mi la amoon atum ñay moomu nag euh, xew-xew boobu bi mu amee ba mu am euh, juróom fukki fan ci la yonente bi sallallahu alayhi wasallam feeñ jamono yonente bi amaan na yeneen kimtaan yoo xam ne gunge na ko bi mu feeñ jamono kimtaan yooyu bari na lool am na ci kimtaan yoo xam ne dafa ñëw ngir mabbu ay nguur am ci kimtaan yoo xam ne nag dafa ñëw ngir feeñal ne dëgg ngi waaj ñëw waaye lu dul dëgg mi ngi waaj a suufe mi ngi waaj a dem ginnaaw bokk na ca kimtaan yooyu mooy bi muy feeñ am na leer bu yaatu gum àndal leer boo xam ne dafa leer ba àgg ca ngén nay saam ya loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko nettali ci xadis boo xam ne ku ñu waa al-Irbaad bin Saariya moo ko soloo moo ne man de daanaa dégg yonente bi mu naan man maay abdullah maay jaamub yàlla bi maay yonente bi fii mujj Euh, te ba may nekk yónente aadama ma ca ban ba daan ne man la euh, Seydina Ibrahima ñaanoon man la Seydina Isa bégale woon ay nitam daan ne sama waajur wu jigéen daana faral di gént te noonu ndax yónente yi seeni waajur wu jigéen dañuy gént daan ne sama yaay sama waajur wu jigéen euh, keroog bi may ñëw jamono dafa gis ak leer bu leer nañ goo xam ne dafa leer ba àgg Saam tax ku ne kenn ku ci ne xam na diggante distance bi amoon ci diggante Makka ak Saam loolu la sëñ bi di wax naan wa min xawaariqa bada maa xaaza raarul muqtada salla alayhi man hada fuaaduhu bil xikami nuurun azimun qad yara bihi qusuura xaysara man kaana fi ummil xura makkata xayril xurum bokk na ci ay kimtaanam mooy yonente bi sallallahu bi mu feeñee jamono am na barab buñ daan wax faaris boo xam ne dafa amoon sawara su mag su fa yàgg lool sawara soo xam ne dafa amoon ay dak ak surga yoo xam ne ñoo ko daan toppatoo di ko xamu fu ñu toll nee nañ sawara si toog na lu ma junniy at te mustafay waaye yonent bi sallallahu alayhi bi mu feeñee jamono rek sawara si daa daa di fay ca sens di wane ne kon lépp luy bàkkaar akub lëndëm day fay waaye ak leer akub njub day fenk xawat xawaariqu badat anil ruwaati sabatat kamithli naari mubsiat ma am mihaayi daqawi bokk na ca kimtaan yi mooy fu ñu wax saa moom it amoon na ak dex goo xam ne euh, da daan daw fu mu toll waaye yonent bi sallallahu alayhi bi mu feeñee jamono rek dex gi daa daa ndox ma faranta dafa daa di euh, wax nañ ne sax bi dex gi demee noonu ñoom dañoo bind ab leetar jë yóbbu ko faaris di ko fa jàmbat bañ demee ñooy leen ah ñun de jaaxle nañu ndax dafa mel ni yéen li leen dal moo ñu dal ñun suñu sawara suñu amoon dafa fay comme ni nga xamee ne yéen seen ndox mi ngeen yor dafa ñiis euh, loolu la sëñ bi di wax naan wa aynu saawatan lati qad azumat wa jallati lil fursi xablal millati wa suwirat kal adam bokk na ci kimtaan yi ànd ak ganek jamono àdduna bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy bi mu gënee jamono rek palais Kisra ba dafa daal di yëngu yëngu bu mett keno ya fa nekkoon lu mat fukki keno ak ñeent daal ci daanu te wax nañ ne keno yi yëpp boo ko boolee fukk ñaar fukki keno la woon ak ñaar kon dafay mel na bu ci fukki keno ak ñeent daanoo kon juróom-ñetti keno rek moo ci moo ciy def te keno yi dafa nekkoon keno yi dëgër lool ba ñoom sax dañ daan wax naan keno yi de dara tabax bii de dara mënu ko fee jugee lu may dañoo wol boftu bi mooy rek ndax dëgëraay bi ak yàggaay bi keno yooyu daanoo Kisra mooy jiite woon euh, pale bi moom it fi mu toogoon dafa tiit balal bi mu toogoon daa di dab loolu yi Sëriñ Tuubaa ñett dinañu ko di wax naan iwaanu kisran sadaa fiiha wa qablu rufiha samkun lahu fartafaha naxwa saman mukarrimi حتى السرير انكسر لأجل هول يعترى من نور أفضل الورى ربي عليه سلم gannaaw bi loolu jàllee ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ jamono am na yeneen kiimtaan yoo xam ne dabaat na ko ci ak ndawam bokk na ca kiimtaan mooy bi muy demee kër euh, sayyidatuna Xalima mu koy nàmpal euh, am na bis mu génn di fo ak xale yi bi ñuy fa bam yàgg ñaari malaayka ñëw da koy tëral daa di opéré bi daa di am lu ñu ca génne lañ lan bañ ca génnee lañ ca génne ba pare daan ne ko lii moo nekkoon cëru seytaane ci yow loolu muy ab xadis boo xam ne euh, muslim andi na ko ci saxe ku ñu wax anas nettali ko anas daan ne ñoom nañ ñëwee dund ba doñu ma woon di ko gis yonent bi ci ginnaaw bi lu yàgg yàgg muy xew-xew boo xam ne am na ay yoon waaye dafay mel ne li gën a wér ñaari yoon moo ci gën a siiw mooy bi nekk nekkee ci kër soxna Xalima ak bi muy dem ca rañaan bi yoon bu ci ne la jox suñu borom jublu woon ca gàttal rek mooy laabal ko ci ay ay fexe yi ba mu jublu suñu borom du jublu àdduna du jublu it ku jublu àdduna loolu Sëriñ Tuubaa wax nañu ko wax ñu jubluwaay la mi ngi ŋàññu damiruhu nazzahu jibrilu bi kaffihi an kulli ma kon xolam bi na jibril laabal na ko ci lépp lu jaarut yoon taharahu lxuduus min umubi bi shaqi sadrihi wa tardi lxuud taharahu fi zahirin wa batini min kulli aybin baarisin wa kaamini laabal na ko ci bépp sikk bu feeñ ak bu nëbb nuzziha qalbul mustafa an kulli ma yaxuulu baynahu wa bayna sissama sufiya batinun lahu wa ma zahar fa abadal mawla kama bihi amar nga xam ne kon gannaaw xew-xewu xaru dënn bi yonente bi sallallahu alayhi jaamu yàlla da koo jege woon da koo yomboon ba da daan def nag nam neexe boromam bi demee bay waaja am ñeent fukki at daana am fu daan dem di jaamu yàlla ñu koy tuddee xaaru xira di fa xeeñtu lu baax di fa wéetoog suñu borom waaye wax nañ ne bu daan dem ci xunti mooma daana def doj bu mu romb rek mu nuyu ko ne ko assalaamu aleyka ya rasulullah waaye tamit garab bu mu romb rek mu nuyu ko ne ko assalaamu aleyka ya rasulallah loolu ñëw na ci ay ahadis yu bare bare waaye sayidna ali wax na ne am na ci ay yoon yoo xam ne moom ci boppam fekke na ko loolu la ñu sëriñ bi di wax naan minha salaamul xajare euh, yonente bi bokk na ci ay kimtaanam ak i jagleem mooy li muy waaja seen jamono dafa am lu ñu baaxoo woon a xam mooy ñi nga xam ne suñ boroom daf daan def ak ñoom secret ci kaw asamaan euh, seytaane yi dañu fa daan mën a dem di yëddu di diglu bu ñëwee daan ko xibaaraat njabarkat waaye bi nga xamee ne euh, suñ borom waajal na yonente bi ba war koo yónni seytaane yi dañuy def saa yu demee am lu leen fa dàq loolu alxuraan nekk na ko ci suuratul jinn waaye sëriñ bi wax nañu ko ci jazbul xulub wa kan qidaadu shuhubi tardan li ahli riyabi an sam'i axbaari nabi wa rajahu bi nanami turida fiha bin nujum an samawati rajim wa farra xaasiran yuli bi xisbihi daaru kañ di waxaat ca lahu ladallaahi sirru laa yutaaliuhu bil kaddi wal ilmi ruhbaanu wa ahbaaru bi ko suñu borom yónnee mu dem ci ay mbokkam dem ci aw nitam ñu sonal ko lool ba mujj jóge fa di dem ca madinatul munawwara ngir fekk ñoo xam ne danañ ko mën a jàppale danañ ko mën a dimbale ci mission bi mu yor ak euh, li nga xam ne moom la doon woote muy lislaam Euh, bi mu dem ci yoon wi ñoom ñu koy dab dem na ba yàgg mu dugg ci am xunt ba mu duggee ci xunti ma lafa am ci digganteem ak Abu Bakar bi ay xissa yu yaat waaye li ñu ci ñor rek mooy ñu duggee ci xunti mi rek suñu borom dafa yabal ab jargoñ mu daal di mu daal di ràbbu ci kaw xunt mi waaye yabal fa ay fi tax ñu daal fay biiw ba yéefar ñëwee bañ xoolee gis ne fii jargoñ bi ràbb na fi fi tax mi biiw nañ fi kon nit mënu fee nekk Aboubacar sax am na ci xadis bu wax naan ñii de buñ niroon tuuti wala buñ xooloon ci seen tànk yi rek danañ ñu gis waaye yonente bi sallallahu alayhi wasallam xamal ko ne mënuñ ñoo gis ndax yàlla moo ànd ak ñoom loolu Sëriñ Tuubaa wax na ko wa min xawaariqa bada ma xaazaraarul muqtada salla alayhi man hada bi eh, sawit tafahum bi ankabuutin nasajat maa xamaamin athbatat xawman bihi qad satarat saatayhima ka zulami wal kaafiruuna qad ataw wa atharal maahi tafaw wa minhu shay'an lam yaraw wa rajacu bil alami wa huwa suu tasatturi maa naatiqil akbari fi lgaari mar'a nathari wa maa ra'aw min arimi ximil xafiidi lmaanici yugni an ilmadaafici li kulli abdin qaashici yatlubu xayral xurum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko suñu borom yónnee Eh, mu doon woo nit ñi ci diggante bi suñu borom defal ko fi ay kéemtaan yu bari yu dul jeex kenn ku ci ne xam ne ne mu'jiza muy kéemtaan xar baax bu ñu ko waxee mooy loo xam ne dañu lay dëkk ne la da nga koy def ñu soog laa gëm noonu nañu ko sëriñ bi jàngale ci tasawudu subaan amma ala sidqihum dalilu fa mu'jizatun anzala al jalilu ba wax ja jeex eh, borom xam-xam yi wax ne kéemtaan boo gis rek ab yonente am ko ab waliyu mën na koo am waaye bu boobaa karaama lañ ko tuddi ñu waxaat ne kéemtaan boo gis rek ab yónente am ko yónente bi ci yónente bi sallallahu alayhi wa la dajee waaye it yónente bi sallallahu alayhi la doon lay taayal ay kéemtaanam loolu la sëriñ Tuubaa bi wax naan la in jaa bil ayaati rusulun taqaddamu fanaalu bika al ayaati min di tafadduli xaadi ayaat mi wax naan kéemtaani yónente bi bari na bari waaye boo xam ne kenn mënu koo takk yonent yëpp moo leen ëpp lay kéemtaan moo leen ëppale ay xarbaax moo leen gën a fés aw lay yonent bi salaa salaam li mu am ci ay kéemtaan kenn mënu koo takk kenn mënu koo wàññi sëriñ bi bi mu ñëwee moom it fàttali loolu di ko wax naan mazaayaaka yaa kulli ladal kulli qad jalat walakinnaha jalat an ash-sha'ri wan-nazmi maxaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi muxayyabatun faltaqra an suuratan najmi am faneen fu mu koy waxe nan ko baax yi sa kimtaan yi kenn mënu koo wàññi di ko jéem a wàññi sax sonal sa bopp la far ndax ñi ci jaaroon dàq wax gën a mën a taalif jéem nañ koo wàññi waaye mënuñ koo jotal lahu xawaariqu tanmu sarmadan sarmadan walahu min alajaaibi ma lirrusli lam yarid tartibu ma lilbarri min manaqibi wa addu ma lahu min alajaaibi taiba fihi alfusaha walbulaga walkullu minhum kulluhu ma balaga muy ay kintaan yoo xam ne am na ca yuy jóge ca kaw am ca yuy jóge ca suuf am ca yu mën a wax am ca yu mënta wax am ca yuy dal am ca yu yëngatu am ca yu way am ca yu loxe am ca yoo xam ne kimtaan la yu ko jiitu am ca kimtaan yoo xam ne gannaaw bu fi jugee la am ay kimtaan yoo xam ne dafa fàddu am ay kimtaan yu teew am kimtaani baatin am kimtaani zahir am kimtaani adduna am kimtaani àllaaxira sallallahu alayhi wa sallam waaye kéemtaan bi ci gën a mag mooy alxuraanul karim alxuraanul karim mooy kéemtaanu yonente bi sallallahu alayhi bi gën a mag waaye mooy xar baaxam bi gën a sax bi nga xamee ne moom la ko suñ borom dëgëre la alxuraan di kéemtaan goo xam ne bi mu ñëwee dafa dëppoo li jamono laaj ndax ay arab la fi fekk ñu amoon fasaaxa di kéemtaan goo xam ne bi mu ñëwee dafa dëppoo xel waaye di kéemtaan goo xam ne bi mu ñëwee dafay sax ba faaw. Serigne Touba wax nañu lan mooy alxuraan lan la làmb ak lan mooy ay njariñam tilkal xawaariqu ma zalat tuayiduhu is lam yazal xilluhu yaati bi ayaati xatta ata bi kitaabin ajazal bulaqa wa kalla an mislihi ahlul fasaxaat akrim bihi min kitaabin qad shafa ilalan fa anqada saxba turran min qabawaati wa huwa alkitaabu alladi laa rayba fiihi hudan li kulli man yattaqi naaran bi taaxaat muy ay eh, melo waaye dem bay wax ku bëgg a àgg ci yàlla ci alxuraan rek ngay jàpp wa man yarum muslatan lillahi munsarifan anhu faqad faatahu xablul wisalaat yonente bi sallallahu alayhi bokk na ci ay kimtaanam mooy suñu boroom da ko daan renforcer ci yenn ay xarem da ko fi daan renforcer ay malaayka ñu ñëw di ko xeexle loolu ci kiimtaan yonent bi la loolu am na ci xare Uhud am na ci xare Badar am na ci yawmul ahzab am na ci bisu Xunayn loolu nag lay njariñ la mooy kenn ku ci ne xam na ne suñ borom mënoon naa yegal Jibril rek mu ñëw jàppale yonent bi ndax Jibril benn donk laa xam rek mënoon naa alag yéefar yëpp waaye suñ borom du ko bëgg gën a dëgëral bëgg koo wan ne dangaa xeej moo tax mu daan bàyyi ba yenn situation yi am mu ñëw daal koy tëb daal koy renforcer am mbooloo ma bu ko defee ñu ñëw di ko xeexle di daaneel yéefar yi di euh, di leen alal loolu la suñu borom di wax naan wa maa anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundin min as-samaa wa maa kunna munzilin faneen mi wax naan wa junuudan lam tarawhaa ak léeg-léeg soldaar yooyu daal lañ mat junni malaayka yooyu daal bi alfin min almalaykati muqrafin léeg-léeg daanañ man ñetti junni bi salaasati alaafin min almalaykati munzalin léeg-léeg daanañ mat juróomi junni bi xamsati alaafin min almalaykati musawwamin foofu la suñ Tubaa di wax naan amaddahu rabbul anam bi jumdi am laakin idaam li adadin laa li lixaam ardaw dawi taazum bokk na ci ay kimtaanam mooy suñ borom dimbalee na ko ngelaw yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko waxal boppam moo ne suñ borom damaa dimbalee ngelaw sabab waaye alage woon aat ci ngelawu dabuur kaana yu'inuhu riyaax kama yu'inuhu rimaax wa huwa ganiyun an silaax bi rabbihil mukarram bokk na ci kimtaan yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy ni mu daan gise ci kanamam noonu la daan gise ci ginnaawam loolu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko waxal boppam am na xadis boo xam ne anas moo ko nettali daan ne yonente bi bu musaan buñ musaan taxawal julli daraan wax naan defar leen sàppe yi na sàppe yi jekk istawu wa taraasu ndax kat dama leen di gis ci sama ginnaaw comme ni ma leen di gisee ci sama kanam ba euh, beneen xadis boo xam ne Abu Hurayra moo ko solo wax ne yonent bi moo ne ndax da ngeen gis sama kanam na leen leer na de bu ngeen di julli lépp lu ngeen def du ma umb seenu ragal yàlla duma ma umb seeni rukkoo du umb ndax ni ma leen di gisee sama kanam ni ma leen di gisee sama kanam noonu laa leen di gisee sama ginnaaw gis-gis boobu nag ku mel ne Ibnu Hajar Suyuuti yi dañoo wax ne gis-gis la boo xam ne duñ ko jàppe gis-gisu zahir waaye gis duñ ko jàppe gis-gisu baatin waaye gis-gisu zahir lañ ko jàpp dañuy jàpp ne daal ni ko suñ borom jagleeloon ay bët yu ne gàññi ci kanam noonu it la ko jagleeloon mu am mën a am gis-gis boo xam ne ku ko féete ginnaaw da lay gis bokk na ci ay ay bëtam da daan gëmm waaye xolom du nelaw sayyidatuna Aïcha laaj nañ ko nu yonente bi daan naafila mu wax a wax ba ca mujj ga mu ne doon naa ci wax ak yonente bi sax waaye daa mujj xamal ma ne ma Aïcha man kat sama bët yii day nelaw waaye sama xol du nelaw loolu la Sëriñ Tuubaa di wax naan kaana yudilluhu lxama yara wara wa ama wa aynuhu kaanat tanam wa qalbuhu lam yanan waaye yonente bi sallallahu alayhi wasallam amaat yeneen kiimtaan ci gàncax yi waaye ci yi nga xam ne mënuñoo amuñ amuñu roo ñu la ñu tuddee ay jamaadal bokk na ca kiimtaan yooyu mooy suñu borom xaraloon na ko weer loolu la ko waraloon mooy euh, yéefar yi dañ koo dëkkoon ne ko bu fekkente ne li ngay wax dëgg la ci yow xaral weer wi mu amee ñaari waaw am na ci xadis sax yu ñëw yoo xam ne li nga wane ne Euh, weer yi biñ ko xaree am na ñu ko fekke woon ci saxaaba yi waaye bañ leen ko xaralee comme ñoom lay seen aada lay seen baax mooy loo leen wan rek ñu yi dañ koo weddi daan ne déedéet loolu day yomb lool nañ bàyyi ba ñu fi jóge woon tukki ñëw ñu laaj leen ñoom luñ gis ñoom ba ñëwee bañ leen laajee ñu ne leen yéen li ngeen gis rek moom lañ gis mooy démb dañoo gis weer wi xar def ñaari wàll xar-xaru weer woowu Euh, ay xadiis yu baree baree bari ñëw la ci waaye alxuraan saxal na ko ci iqtarabati saamatu wan shaqal xamar foofu la suñu Tuubaa wax naan laka sarxu xasaar bi saaqin bi daawatin kaman shaqa badrun shahidun thamma bil fadl di waxaat naan lahum shiqaaqul xamari bi dil baqaa wal qidami faneen mu naan shaqa li tasdiqin lahu llaahu l xamar wa daaka ma waqaa xattu li bachar loolu yàlla mosu koo defal kenn xar weer yi moom yàlla mosu koo defal kenn di wax naan wa huwa alladi nchaqa tasdiqan lahu xamaru wal jisru xanna lahu taswita fi xasari bokk na ci ay kintaanam mooy am ndox daana balle ci ay loxo daana jékki-jékki ñu gis muy jàpp ba mu yàgg ñu gis loxo yi di génne ndox loolu nag boroom xam-xam yi dañuy wax ne lu mel noonu suñ borom defaloon na ko Muusa waaye ci aw doj la ko defaloon te loolu mooy li suñ borom di wax naa naan wa iz istasqaa Muusa li qawmihi fa qulnaa idrib bi asaaka al xajara fan fajarat min baneen baram maan fan bajasat waaye ñu ne li ko wutaleeg kimtaanu kimtaanu yonente bi sallallahu alayhi sa sallam mooy doj wuy ndox baaxoo nañ koo gis waaye yàpp ak deret wuy génne ndox mu weex ndox mu weex tàll wala ndox mu ñuul ndox mu sell loolu la kenn mu sa gis moo tax kon xarbaax la ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, saxiixul buxaari ak saxiixul muslim ñëw na ci ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ koo fekkoon barab bu ñu wax zawra euh, daa ko fay tegal ndab mu commencé bi mu commencé jëfandikoo ndox mi rek ndox mi ab ndox di ball ci diggante ay baaraamam mu jàpp ci nit ñi jàpp ci nga xam ne ndox mi doon ball ci ay baaraamam moom ci jëmmam alayhi salaatu wasalaam ci la jàpp bi mu noppee mbooloo mi yëpp ci lañ jàpp ki ko doon nett li ñu ne ko waaye yéen booba ñaata ñaata ngeen woon ñaata ngeen woon mu ne ah xam naa de matoon nañ ñetti téeméeri nit wala lu ko jege ñetti téeméeri nit jàpp ci ndox moo xam ne day balle ci diggante baaraam yi bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jaabir nett li ne bisub Xudaybiya nit ñi maroon nañ lool yonente bi sallallahu alayhi indi ndab loo xam ne da ci doon jàpp nit ñi mar lool ba xamatuñ nu ñuy def mooy leen waa lu xew ñu ne ko ah man ñun de wax dëgg yàlla ñi ngi toog waaye amul luñ jàppoo amul luñ naan ndox moomu nga yor daal moo fi nekk ci am ndox yonente bi daal di jël loxo bu sell ba daa koy teg ci kaw ndab yi ndabul ndabul njàpp ndox mi commencé ball di génn ci diggante ay baaraamam di ball sotti lu baree baree bari jaabir nee na keroog ca ndox moomu ca lañ naan ca lañ jàpp ñu ne ko waaw booba ñaata nit ngeen woon mu ne ah tëkkuma ko de waaye buñ doon téeméeri junni nit ndox ma danañu doon téeméeri junni nit ndox mi danañu doy waaye booba fukk ak juróomi téeméer rek lañu loolu la suñu tubaab di wax naan wan fajaral maawu namir min yedi di takarrun bokk na ci ay kimtaanam mooy daana laal barab ndox mu bari di ci génn loolu ay axaadis yu bëree bëri ñëw na ci moom la Sëñ Tuubaa wax naan wa huwa allazi majja fawqal bi'ri wartafaat miyaahuhu kartifaain mawji fil xabari wal bi'ru faarat ida al muxtaaru majjalaha wal maau qad saara misla al mawji munsajima ma ngay wax ca mawaahib bi sarxun tasiiru gaysun yafuuru biirun tafuuru bila xaysun euh, yafuuru mooy taw bu bari ba nga xamee ne moom la ko moom lañ moom lañ ko ñaanoon mu mu mu mu mu mu wax ceeg suñu borom ba mu ci waxee suñu taw ba mujj taw bi mel ne luy yàq ñu ñaanaat ko mu wax ca waxam ju siiw jooja daan ne allahumma xawaalayna wala alayna sotti ko mu wër ñu waaye bu ko bum dal ci suñ kaw na dem ci gaañ yi na dem ci montagne yi na dem ci xur yi ak yu ne demee yonent bi sallallahu alayhi bokk na ci ay mooy saxaaba yi nee nañ daana tibb aw ñam dem ba koy waaja sax dem ba koy waaja sex ñu dégg ñam yi di sàbbaal di sàbbaal ngir loxoom bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam loolu saxaaba yi dégg nañ ko Sëriñ Tuubaa yi nettali nañ daan ne sumia tasbiixu taam fii kafi afdalil anaam waaye bokk na ci ay kimtaanam mooy woo na garab ñu wuyu ko alayhi salaatu loolu mooy bi ko waa Màkka sonalee euh, ba ba mu jaaxle Jibril ñëw seet seet si ko mu ne ko ah gis nga de sonal nañ ma lool deret jaa ngi nii wër ma léegi nag lenn rek laa bëggoon nga wan ma kimtaan boo xam ne daal danaa ci jaare ba nit lu mu ma defati ak kurul nit du ma ko faala Jibril ne ko aja kimtaan bi mën naa nekk léegi garab gee ngay jàkkaarloo woo ko mu ñëw yonente bi daal di woo garab yi ne ko kaay garab bi commencé ñëw di doxe ay tànk di doxe saaq ndax garab kenn ku ci na xam na ne du am ay baaraam yu mel na garab gi di wattu di ñëw di wattu di bi mu ñëwee bay si ci yonente bi ne ko digalaat ko mu dellu fa mu nekkoon garab gi de yonente bi ne ko dellu fa nga nekkoon garab gi dellu fa mu nekkoon yonente bi naan ne léegi doy na sëkk lu ma waaye defati rek dootuma ko jàppati euh, loolu la suñ Tuubaa doon wax naan alayhi mashi shajari euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mbaaxam am na garabu ma gum daan wéeru ci jamonoon yu jiitu ci bi mu nekkee Madina bi mu demee nag ba mbooloo mi bari am soxna su sàkku ci moom am na ñu ne góor la am na daal ko sàkku ci moom ne ko teñ laa defaral minbar bi ñu ko defaralee minbar ba mu toxu taxawatul ca garabu tàndarma ga di xutba dañoo jékki-jékki dégg garabu tàndarma gi di yuuxu yuuxu yu métti bi mu yuuxu yuuxu yu métti yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem dalal ko jël ko tàpp ko ci ab dëndam daan ah li mu yuuxu def xam naa xamu leen ko waaye mooy taxaw ga ba fa naan taxaw di xutba daal di tuxu loolu moo ko métti loolu la Sëriñ Tuubaa doon wax naan ah, qad xanna jismu nabi is anhu muntaqilu xaniina yi furdaanuha turima ak gileem jàmbat na ko moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gileem goo xam ne borom da ko sonaloon yonente bi daal cay dénk borom ne ko dee ko gën a toppatoo ndax daal nee na li nga koy liggéeyloo dafa bari te doo ko jox doo ko yàqal lu bari ak till wax na ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ci ay kéemtaanam la bokk till goo xam ne daa demoon daa di këf jurub jàmbur gàttub jàmbur ci biir ay juróom euh, yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñëw koy boole ci xissa bu gudd yonente bi sallallahu alayhi wasallam na ci ay kéemtaanam mooy bukki wax naa ak moom ndax boobu ab kaw-kaw moo ñëwoon ne ko bukki bii daal boo waxul rek ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah du la gëm yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal ne bukki bi daat koy woo bukki bi ne ko labbayka wa sa'dayka ya rasulullah wuyu naa la yonente bi ne ko yow bukki bi koy jaamu koy jaamu mu ne ko yàlla mi nga xam ne moo moom asamaan si ci moo moom aras bi nekk ci kaw asamaan yàlla mi nga xam ne euh, moo amee nguur ci suuf yàlla mi nga xam ne moo moom géej ca àjjana moo fa amee yërmaane ca sawara moo fi amee mbugal yonent bi daal di wax bukki bi ne ko maay kan mu ne ko anta rasulu rabbil alamin yow yaay ndawul ndaw li nga xam ne yow la yàlla yónni ci ñëpp muy Euh, riwaaya boo xam ne soloo koo xam ne ak wuute am na ci waaye la gën a wér mooy texte bu wér la looloo tax sëñ tubaaraan kalaamu rabbin qad ataa fiiha bi nassin sabata bokk na ci xar baax yonent bi mooy weñ daawu ko jege fenn daawu jege sax ay yére weñ yi kenn ku ci ne xam na ne jamono ji sonle nañ loolu waaye yonent bi weñ daawu ko jege daawul jege ay yére loolu sax na ci ay texte yu bare bare minha tajannubu zubaab an jismihi maa thiyaab kadaka tashilu siaab billaahi muulil maghnum bokk na ci kimtaani yonente bi sallallahu alayhi wasallam mooy njanaaw yi dañ ko daan màggal dañ ko daan respecté loolu ñëw na ci ay textes yu bari sayyidatuna Aïcha day wax ne ñun dañ daan yar ay rab waaye rab yi ñu daan yar yonente bi bu mosaan nekk ci biir kër gi rab yi dañ daan neem duñ yëngatu duñ def dara ngir war maa ko alayhi waaye bu génnee kër gi rek nga gis ñu commencé cëppi bi ak di yëngatu loolu la suñ borom suñ suñ Tuubaa di wax naan tayru tayru ñu azim yonent bi gannaaw loolu it am na yeneen jagle yoo xam ne mi ngi ko amee ca bis wala am na yeneen jagle yoo xam ne mi ngi ko amee ci lim àndal lim indi muy diineem ci muy sariyaam ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñ borom da ko def da koo jox sariya soo xam ne moo fool li yi mos sa ñëw yëpp loolu suñ borom ma ko wax ci alxuraan wa man yabtaxi xayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laaxirati min alxaasiriin waxaat ne wa anzalnaa ilayka alkitaaba musaddiqan li ma bayna yadayhi min alkitaabi wa muhayminan alayhi mu andi sariya soo xam ne bu mu dafa xool la baaxoon ci sariya yi fi jiitu woon mu jël ko xoolit la ca matut mu mottali ko loolu la Sëñ di wax naan xaasa kitaabuhu jamia maftaraq fi gayrihi min kutubin min alfiraq di waxaat nan rasuluna ahmadu jaa musaddiqa liman taqaddamu wa kullun sadaqa am faneen fu ñu wax nan ahmaduna jannatu jannatuna wa diinuhu min afdali al-adyaani al-ilaahi al-maliki at-tayyaani nicmatu wa muminin raaxatu kulli aabidin wa muxsinin faneen muy wax naan diine yonent bi mu ñëwee dafa ëmb yeneen diine yu ko fi jiitu woon yépp moo tax loo bëgg rek am na ci diinu nabiyil mu diinu nabiyil muntaqa diinul xawa maaraama xaasida haati haada aw kani suñ borom defalaat ko yeneen jagle yowmal qiyaam buñ fa àggee mooy bu ñu dajalee mbooloo mépp war leen a àtte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy jiitu ci kanam ñëpp topp ci ginnaaw loolu suñu borom moo ko jagleel am na ci xadis yonente bi naan yowmal qiyaam bu ñëwee man maay jiitu nit ñi bu ñu waree discours maay discours maa leen di lii may wax nag nii la amee te ci anas di nett li ne dégg naa ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam muy wax ne man la njëkk xaral suuf si ma génn yowmal qiyaam man la ñuy jox liwaawul xamd te ndamuwuma maay sangu nit ñi ñëpp yowmal qiyaama te ndamuwuma maay ki nga xam ne man la njëkk a ubbil àjjana te ndamuwuma maay ki nga xam ne maay ñëw ci buntu àjjana fekk fa ña koy garde bu ma ñëwee bu ñu ne maa yaay kan may leen ah man de maay Muhammad ñu daal may ubbil daal ne ma acca la jàll si nee na bu ma duggee rek damay jàkkaarloog suñu borom subhaanahu wa taala waaye bu ma jàkkaarloo moom dama koy sujjóotal suñ boroom daan ne ma siggil yow Muhammad waxal loo wax rek ma dégg ko waxal loo wax rek ma nangu koo tin rek ma tin ko nee na ma daal di yëkkati sama bopp daal di sigg daan ne ko yow suñ borom dara andi fi lu may dimbale sama xeet wi tin sama xeet wi ummati ummati yaa nee na suñu borom daan ne ma demal ci sa xeet wax koo fa fekk ci xolam lu tolloog sànq leen wala aw fepp ci gëm yàlla na nga ko dugal àjjana muy xéewal bu mag goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko suñ borom jagleel kon mooy jiitu ñëpp leen dajale loolu la suñ tubaa di wax naan lakal wasilatu yowmal xasri min malikin ixtaara kawnaka daa sabqin wa ajraabu di ko waxaat naan ca eh, sindiidi muhammadin malka il axyaari qaa'idina li jannatil xulli yawmal xashri yallaahu waaye moom la suñu boroom jagleel al maqaamul mahmud yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ba ñëpp jaaxle ba ñëpp jaaxle kenn xamatul foo jëm ku ñu dem mu gàntal yonent bi sallallahu alayhi ci moom la dem mu daal di rambu ñëpp rammu nag dafa bari ay xeet borom xam-xam yi nee nañ juróomi xeeti rammu moo am rammu bi ci jiitu mooy buñ dajaloo ñu wut ku ñu rammu ngir ñu gaaw wax ci suñuy mbir kenn ku ci ne xam foo jëm boobu moo ci jiitu rammu boobu yonente bi rek moo ko moom keneen fekk ko ci beneen rammu bi mooy rammu aw nit dugal leen àjjana te kenn du leen xisaab rammu boobu yonente bi rek moo ko amee kenn fekk ko ci bi mooy fekkoon ñu war a dugg sawara nga ràmbu leen dugal leen àjjana loolu moom yonent bi mën na koo def ku dul yonent bi mën na koo def ñeenteelu ràmb gi mooy ku duggoon sawara ba bi nekkoon ab jullit nga jëlee ko sawara dugal ko àjjana yi yonent bi mën na koo def keneen ku dul yonent bi man na koo def juróomeelu ràmb bi mooy ràmb gi nga xam ne dangay ngay ràmb ngir yokkal nit daraja yam am ca àjjana yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag ak li ñuy wax ashafaatul usma muy ramm gi gën a mag gi gën a rëy moom rek moo ko amee looloo tax suñ tubaa dañuy wax ci benn xasida nañu ëllëg yowmal qiyaama bu suñ borom dajalee nit ñëpp ca bisam bu màgg boobu yonente bi danaan samaw xeer te boobu fekk na ñëpp jaaxle na kenn xamatoo foo jëm yajmau rabbul alamin al alamin fi yawmihi al azimi xaqan laa yawmi rasuluna yaqulu ummati lana taxayyuril xalqi maa tajalluda yeneen yonente yi nag lu ñu def moom lu ñu def dañ naan suñu bopp lañ tala jumlatu rusdullahi nafsi nafsi taqulu xiina man wara fi lafsi yonente bi moom lu muy wax huwa yaqulu ummati wa turfau lahu shikaayatu idan fa yashtaru faneen mu naan ahmaduna almuxtaar sallallahu عليه في الآل ومن والاه تقديمه قلده المعظيم فكونه خير الورى معمول di wax ci beneen barab naan yonent bi moom suñu borom moo ko wax daraja rek moo ko kaweel rek moo ko def daal ni mel suhuuru kawnil muntaqa xayral wara abqaahu man ahsana xëyna sawara yaqulu ummati fi rusdu taqul nafsi bi ru'yati muhayyana loolu di ay jagle ak i kiimtaan yoo xam ne yëpp buñ ko jàngatee lenn rek benn résultat rek la ñuy gis mooy ne yonent bi kon moo sànni ñëpp moo jiddu ñëpp moo kawe ñëpp moo kawe lépp moo kawe fépp loolu la suñ borom di wax loolu la suñ Tuubaa di wax naan lil Mustafa maa lam yakun li mu xaddali li ko yàlla defal su koo defal kenn indal mufiidi bi zaahirin wa bi mubhamin moo xam muy luñ mën a gis moo xam muy luñ mënta gis di wax naan law lam na abdullahi maa naala al ula ahlul ula inda ku bëgg am ak kawe ku bëgg a texee di jàppal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam huwa sayyidun huwa shafiun wa mushaffaun wa huwa allazi tafdiluhu lam yubham muy koo xam ne si borom kon moo ko jiital nga xam ne keneen koo gis rek ci ron tànk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci lay jaar bu bëggee bu bëggee tekki daal xadamu ahmadal muqaddami ala riqaabi man xaazul maqaamatil ula rasuluna ahmada faaqal kumala moo kawe ñëpp ci lu leen kawe ci xam-xam ak ci ay teggin ak ci mën a jaamu yàlla maarifatan wa adaban wa amala nee na yàllaa ko bind yàllaa ko def noonu yàllaa ko bind teg ko ci kaw ñëpp kenn mënu ci dara ras rasulu euh, allahu xaaliqu jamii al alamin wa fawqahum jaala ahmad al amin muy koo xam ne moo jiitu anbiyaa moo jiitu borom xam-xam moo jiitu tànneef yi moo jiitu wali yi mooy njiitu ñu baax ñépp nabiyuna wa huwa raisul anbiya wal ulama wan nujaba wal awliya rasuluna wa huwa raisul kurama wan nujaba wal udaba wal ulama Sëñ si nee laaj ma kan moo gën ci mbindéef laaj ma ko rek boo ma ko laajee ma ne la yonente bi moo fi gën sallallahu alayhi wa sallam falaw man afdalul xalqi kullihim asharku ilal maaxi fa qultu lahu haada ndax lan ndax nee na adduna bii ak àllaaxira bii kenn mënu cee am texe kenn mënu cee am dund gu neex lu may dangaa jàpp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam falaa yaxtawi dunya wa uxra saadatan siwa aqilin billahi maa shafii laa daan ne laaj leen ma kan moo gën ci yonente bi kan moo gën ci mbindeef bu leen ma ko mooy ki daan alal mooy ki nga xam ne it moo daan joxe ne béti te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam isa man afdalu alxalqi kullihim lahum qultu man yurdi al ida wal muna yurdi wa ma daaka illa almuntaqa nicma shafii alayhi salaam alqaabidi albaasiti almuti am faneen fu muy wax fi lay di fi di ci nuroog bu sayri ca nam doon tagge yonente bi sallallahu alayhi wasallam ca hamsiya di wax naan yaa xaaisa samaa ili sama yaa jaaisa samaa ili sama yow yu jéggi asamaan jëm ci ku kawe ba mel ne asamaan muy suñu borom yaa man jaxaltu sarmadan samaa yi yow yonente bi nga xam ne yow laa def ne sama asamaan yaa ma tiim duuna ruqiyika ruqiyil mursalin sa kawe gi bu jàllee ba noppi ci la yonente yi ñu soog a kawe wala yaa issaadatil mubashirin wa duuna rubatika kullu martaba boo amee daraja ba desal daal ci la e, yeneen gaa yu baax yi di soog a amee daraja ji salla alayka man martaba daal ne fa nisbatu rusli fa nisbatu rusli wal anbiyaa lahum ka asrihim di law leen booy xool yonente bi ni mel ak yeneen yonente yi day mel ni nga jël yonente yi di ko gam-gamle ak wali yi ñee yonente yi ëpp daraja noonu la leen yonente bi sallallahu alayhi wasallam ëpp di wax naan fa mu'jizatuhum ma'an madahiri li mu'jizatika fa anta zahir seen kimtaan ya day mel ne rek da daan wane sa kimtaan yi yonente bi sallallahu alayhi wasallam man dhanna annaka tusaawi bashara yaa man yasuuqu a muna wal bushra yow amul kenn rek ku war a ñort ne am nga koo yamal wala am nga koo toll ndax yow yaay ki nga xam ne yaay joxe mébét yi kenn ku ci ne ci mbindeef yi lu mu bëgg ci koy sàkk daan ne lasta maqiisan bi si waaka abadan kenn du la naqale ak kenn minal wara yaa zeyna man tarabada farihatun ma diyaain minka wa saatiatin baahiratin anka dangaa am ay leer dangaa am ak yëkkati boo xam ne ci nga rawe ku dul yow sayiduna ahmadu sayidul arabi wa sayidul ajami faasa bil xoram bi daal moo gën ci arab moo gën ku dul moo tax suñ borom euh, subhanahu wa taala kon lii moom lañu mënoon a wax ci waxtaan wi muy lu aji woon ci jagle ak kimtaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ay jagle yu bari di ay kimtaan yu bari di lu saaroo ci biir alxuraan di lu saaroo ci biir mbindum wala jàngale bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di lu saaroo di géej yoo xam ne tamat ko ba jeexal waaye ñu def loo xam ne ñu ci waaye jël da nga ci baraañoo rek waaye doo ko mën a motal ñu ngi yàlla foofu suñu kàddu di ñaanal suñu borom nangu ñu suñu gaawandu te setal ci gërëm yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bi baraka ci Cheikhna wa wasiilatina Cheikh Ahmadou Bamba salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ta'zimuhu bi sunnati kaddu gi ñuy jottali nag kaddu la boo xam ne daairatu rawdu rayaaxiin moo ko defoon ci digalal cheikh Mouhamadul Muntaxa xafisahullahu wa raa te mu jëm ci xew-xew bu siiw bi nga xam ne yéen ñëpp yéen a ngi koy dégg muy ay baat wala ay jëf yoo xam ne am na ay nooni lislaam yu ko jëmale ci yonentub lislaam bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam baat yoo xam ne yéenul ci kenn waaye nag rawatina ku mel noonu bi sallallahu alayhi wa sallam lu mel noonu nag bu amee ñépp ko war a ñaaw ñépp ko war a weddi waaye rawatina nag fii ci Tuubaa nga xam ne ki fi nekk bañ na ko ba moom daa tuddee boppam xaadimul rasul nga xam ne day mel ni bu kenn doon aar yonent bi bu kenn doon défendre yonent bi moom moo ca war a njëkk moo ca war a jiitu ndax loolu la tuddee boppam kon wax ji ñu ngi koy wax ci turu sëriñ bi moo ko bind moo ko bindulu waxalu ko ñu wax ko ci turam dafa wax ne bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala alzalimin wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwani wa tamkin am wa baad fa inna almasaasa bi jaanibi nabiyi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa intihaaka xurmatihi bi ay nawin min anwaai intihaak masaasun bi aqidati almuslimina ajmain wa jarxun li mashaaciri aksari min milyaar wa nisf min albashar wa imaanu almari laa yakmulu illa ida kaana annabiyu ahaba ilayhi min kulli cheyin misdaaqan li qawlihi sal allahu alayhi wa sallam laa yuminu ahadukum xata akuuna ahaba ilayhi min waladihi wa waalidihi wannaasi ajmain wa min haada almuntalaq tunaddidu rawdu rayaxiin gaayat altandid bilmuxaawalat albaa'isa lilisaa'ati ila annabiyi sal allahu alayhi wa sallam birrusuumi alkarikatiriya كما يستذكر الموقف المخزي الذي اتخذه مؤخرا الرئيس الفرنسي إيمان ماكرون من هذه الرسوم المسيئة وتدعو الدائرة الرئيس الفرنسي بوجه خاص والمجتمع الغربي بوجه عام إلى احترام معتقدات المسلمين ورموزهم الدينية وتؤكد روض الرياحين أن الاحترام المتبادل بين أصحاب المعتقدات المختلفة هو الضمان للسلام والاستقرار في العالم وهما غايتان يجب على عقلاء البشرية أن يسعوا إلى تحقيقها وتماشيا مع تعاليم الشيخ القديم رضي الله تعالى عنه تؤكد الدائرة ضرورة ضرورة استخدام الوسائل السلمية لحل الخلافات في العالم كما كما تذكر جميع المسلمين بالوعد الإلهي بإتمام نور الله ولو كره الكافرون وبالبشارة النبوية بظهور الإسلام بقوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ويقول عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت ولا يترك الله بيتا بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين bi izzi aziz bi izzi aziz aw bi zulli zalil bi yu'izzu islam bi yu'izzu bi wa wa zullan yusillu llahu bihi al-kufr wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Touba loolu li muy diñ koy tënkee rek mooy sëriñ bi day wane foofu ne ci turu murit yëpp ak ci turu jullit yëpp mi ngi xamle ne ku laal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala nga xotti war maam ak xeet woo ko mën a xottee xotti nga war may jullit yëpp laal nga xolub jullit yëpp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mooy ki nga xam ne moom la jullit yi gën a bëgg ci seen bopp annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim moom lañ gën a bëgg ci seen bopp te bëgg ko dafa bokk ci seen gëm-gëm sopp ko dafa bokk ci seen gëm-gëm ba lépp lu ko laal lu sori ak lu jege laal na jullit yépp laal na mboolem àdduna bi yépp kon lii nga xam ne moo am muy ay noonu lislaam jël yonent bi sallallahu alayhi wa di ko foyee jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaawal loolu kat daayira bi ak mboolem murit yi ci turu sëñ bi ñu ngi koy ñaawlu fu ñaawlu yam ñu ngi koy weddi it fu weddi yam di di di di jëmale ci ñi nga xam ne ñoo koy def yu xam ne lii indi jàmm ci àdduna bi mooy kenn ku ne wormaal la sa moroom gëm nga wormaal ko te respecté ko ca loola loolu mooy indi jàmm ci àdduna muy indi ak dal ci àdduna kon mi ngi leen di ñaan ñoom ñëpp ñu ànd ak seen xel ànd ak seen teey te xam ne gëm-gëmu doomu aadama du lu ñuy foyee gëm-gëmu doom aadama du lu ñuy kallkallee kon sëriñ bi mi ngi leen di woo ñoom ñëpp ci ñu ànd ak seen xel ci doxal loolu nga xam ne moom la sàkk ci ñoom ni ko sëriñ Touba radiyallahu taala anhu waxee daayira bi mi nga xam ne ne sëriñ Touba moom lépp loo xam ne mi ngi koy yëngutu da koy yëngutu ci jàmm da koy yëngutu ci ak dalal ni muy ni muy fàttalee jullit yëpp ñu xam ne suñu borom tabaraka wa taala mooy aar diine jii mooy aar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax nii ko ki doon waxtaan léegi waxee ba noonu yàlla jógee dal ca makka ka ko aar mooy boobu yonent bi ñëwagul waaye tabaraka wa taala moo ko aar ca ca fiil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi aad alam tara kayfa bi ashaabil fiil noonee mu amee woon noonu la mën a amee waat ba léegi tam sunu borom tabaraka wa taala moo moom diineem te moo koy aaral boppam moo moom moo yónnee ab yonentam moo koy aaral boppam yuriduuna an yutfiu nuurallaahi bi afwaahihim wa yaba allaahu illaa an yutima nuurahu walaw kariha alkaafiruun loolu ba ko yàllay wax yàgg na lool naka jekk am ñoo xam ne dañoo jóg ngir fay lislaam dañoo jóg ngir fay diine diine sunu borom yàlla nee na dañuy sonn waaye sama diini ji day gën a kawe day gën a yëkkatiku rek ba faw seen wax jooju du ca dara loolu nag yore bi sallallahu alayhi wa sallam moom it leeral na ko nee na diini ji danañ dem ba foo xam ne néeg bu nekk dana ca dugg néeg bu làqu ak bu néeg bu nëbbu lépp dana ca dugg te yàlla dana teral ñi ko yor yàlla dana suufeel ñi nga xam ne ànduñu ak ak ak moom loolu daal mooy li nga xam ne sëriñ bi mi doon na ko xamle tey xamle nag li nga xam ne mooy faj loolu lépp mooy guddi gii ñu nekk tey adduna bépp di ko màggal rawatina Sénégal rawatina fii ci Touba loolu mooy mooy faj mer mi dëgg dëgg dëgg dëgg loolu moo koy faj du ay wax ju bari du ay tontu yu bari waaye tontu li mooy lii ñu nekk tey di ko def taxawal guddi yu mel nii di wane suñu cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wane sant bu ñuy sant yàlla ci feeñal di ñu ko feeñal ci digg ci ci guddi gii loolu mooy li nga xam ne mooy tontul dëgg dëgg dëgg li wax daa mënta ñàkk rek waaye lii mooy jëf ji jëf ji mooy dundal guddi gi jëf ji mooy sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëf ji mooy roy ko topp ko xencu sunnaam ba képp ko la gis xam ne yow mii kat ki nga topp jar naa topp kon mi ñaaw-ñaaw yii li ñuy fajee jëf yii mooy fas yéene roy ci yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne noonu la ko doon royee ba ne salaatu sitta bi mati sitta taatihi batta ma tisaa i séddale ak dundam yépp juróom benn weer muy tagg yonent bi juróom benn weer muy julli ci moom te la tax mu di ko def mooy rek roy ko kon li muy digal taalibe yépp mooy nañ roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fu ñu leen fekk nañ ko roy fu ñu leen fekk nañ koy roy ci ay wax nañ koy roy ci ay jëf nañ koy roy ci ay melo loolu moo li nga xam ne mooy faj naqar bi nga xam ne moo ñu naqari lu ñu naqari rek bàyyi ko jullit yi wàcc guñ wàcc yoon wi leen ci bi tegoon sallallahu alayhi wasallam moo ko waral kon nañ tegowaat ci kaw yoon wa fas yéene kenn du ñu ca wàcce ak ku mu mën a doon nag wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum wa rahmatullahi وساح له الفاخرة ونسله الطاهر بالأسرار الإلهية فكانوا حصنا حصينا لأهل الأرض والدين حماه الصلاة والسلام على خير البرية وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه وبعد فيقول العارف الذي حاز من الفضائل كل محنة سنية وتحلى بعلم الظاهر والباطن فصار ديدنه وخاية مراه لنظم طاهر التي حكمه في القيامة منج من النار المحمية مولانا أسير جعفر بن حسن من إلى البرزنجي نسبته منتبه بسم الله الرحمن الرحيم أبتدئ الإملاء بالذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه وأثني بحمد موارد سائغة هنية منبطيا للشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية عطل الله ما قدره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم عدل اللهم قبره الكريم بعرف شقي من صلاة وتسليم عطل اللهم قبره الكريم بعرف شقي من صلاة وتسليم أعطني اللهم قدره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم أعطني اللهم قبره الكريم بعرف شصي من صلاة وتسليم أعطني اللهم

اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم فصل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أيها المبعوث رحمة للعالمين السلام عليك أيها الهادي إلى صراط مستقيم السلام عليك يا شفيع المذنبين السلام عليك يا من وصف يا من وصفه ربه بقولك وإنك لعلى خلق عظيم وبقوله عز وجل من قائل بالمؤمنين رؤوف رحيم السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين السلام عليك يا قائد القر المعجلين السلام عليك يا من صبح الحصى في يده وحل الجذع إليه السلام عليك يا من بلغت الرسالة السلام عليك يا من أديت الأمانة السلام عليك يا من نصحت الأمة السلام عليك يا من كشفت الغمة السلام عليك يا من أقمت الحجة السلام عليك يا من أوضحت المحجة السلام عليك يا من جاهد في الله حق جهاده السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وصحابتك أجمعين السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين بقوله عز وجل من قائل بالمؤمنين رؤوف رحيم السلام عليك